jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte yaakaar naa ne bés bu ñu doon waaj di ko waaj ay weeri weer ba ñu dem ba ni ay bés moo ci des yàlla nañu yàlla may tal ak fekkee ba ñu yegg ca ak jàmm dox ci diggante Emine François Gomis ak xale bi di Sokh mbokk yi tey ñu ñëw ci open press ki nga xamante ni mooy Franc gis ngeen Sokh def na déclaration wax na diggantam ak Franc wax na nan la fas yéenee jëflante xale bi di Franc waaye Franc tey dafa am baat tontu lu mu koy tontu est-ce li mu waxoon da koy gën a confirmer ndax nee na Pikine amaguñu mbër mu ma mën a daal Sokh wan ne ni ko xale màgg na maay doonay Mbaye Guèye wala boog maay doonay Mouhamed Ndao Tyson maay doonay Baboy maay doonay Eumeu Sène ndax incha allah rabbi lépp lu Pikine ñàkkoon ci làmb ñun xale yi ñoo ko fa fas indi mbokk ambiance bi am na cosaan am na aada am na kaay Ibrahima Khalilullah samba yaa na nga yaay laale laale la yaay a tureer na yaay a tureer naay guy doon ma samba jeey guy geniis na taguna samba yaay taguna ay daal ay daane mbokk yaay wala laayo lay abaax yaa baax te na sambay lay farañu na bay faala sabu japi di gandal digi joona yaba yaba ay la samba yan nganjay digi joona eh ay way samba yaayu alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. tey dama la bëggoon laaj. mais bëgguma laaj. Père nga xamante ni dafa yéene Franc ndam jàppale ko ànd ak moom mais dama a laaj Père bi nga xamante ni consultant la ci làmb mooy diggante Franc ak Sokh nan nga ko gisee ñaari état de forme xale yi. ñu dellu sant yàlla jul ci Seydina Mohamed sangu sang si ñoom ñaar ñëpp ay talent la ñoom ñaar ñëpp samay doom lan ragal péete nag day xëñ a wërsëg mais ñoor ñëpp sumay doom la ñu mais ragal péete day xëñ a wërsëg. mooy suma doom man parcelle laa dëkk parcelle laay noyee un ba vingt six ci xale soxla ci man yaa ko yaa ko teree am Franc laa àndal moom laa àndal suba soq suma doom la ñoom ñaar ñëpp ay talent lañ soxla bu def profom baag si fii Franc fii bu ñu nax askan wi bu ñu demee kenn ku ne li nga wax ba dina bépp jóg boo ñëwee lamb ji nag ko jëfee loolu daal bëgg naa ñu bàyyi ci xel kenn ku li nga wax ba kenn kenn kenn ku ne li nga génnee sa gémmiñ ba askan lépp bàyyi ci xel li lay war a suuli nga yàlla bu dimanche na nga ko jëfee buñ ko jëfee amateurs yi daañu kontaan lamb ji du yàgg man nag foo ma jëm ragalu ma ko lamb ja ànd ak Franc mu tuuroo ndox man ragaluma fu ma jëm. mais soq nee na Franc li ñu koy yaakaar ci moom newut ci moom. te bu arbitre bi mu wan ni ko moo ko ëpp xam-xamu bëre te moo ko dàq bëre. am na ci droit. 79 ba léegi maa ngi dégg loolu 79 ba léegi maa ngi dégg kàddu googu mais nag ma koy dégg mu nekk dëgg bari na li ma koy dégg. mu tey bee ko bari na ku ma tax jooju wax du ma ko mën a gëm waaye li mu wax moom na ko jëfee. mais Franc lan la yebee soq ba mbër mu mel ni soq mu ne ko dinaa la daan ci une minute trente secondes laa lay may soo ñëwul ma ñëw ci trente secondes yi une ma daan. mais la Dior daan dugg ci dëkk na sara leen ndongo Njaay ba mu tëb ak dooleem loolu lu mu doole kon loolu la. ci doole la ko daj. waaw. Franc moo ëpp doole soq. non. ndax boo ko bu doolee bu ñu nee la ñëpp di xam quest mu qui se passe bu ñu ci la ñu xam ne man mënu ma xam sax doolee France franc soq it ñëpp nekkee mu ñoo xam dooleem franc moo war a mën a yëg dooleem soq moo war a yëg fa doolee franc bu ñu nee Renkum daañu xam qu'est-ce dina soq dina taxaw soq xeex ak moom père. non lambu xeex doo ñëw lambu ñoom ñaar dañuy raag ba naaw. non soq du daw soxna naa naa la doog gi le Franc nag dama ko dama ko dama ko waxatuma ko Franc waxatuma ko Franc xeex rek lay def léegi loxo yi neex na xam na fi muy dóor Franc ci pàddu lay dóor. ko ko ci làmb. lépp a ngi ci la nu wax man naa cof fi sax nga daanu kon lépp a ngi ci làmb man dañ koo dóor mu daanu man dañoo bëree fakkastalu daanu chute mën naa jóge nu ne. waaye kenn ku ne li nga na ko respecté ndax teel a yooyu amateur yi ñu dem ñibbi ndax ñoom ñaar war ñoo nekk ci lambu sax kii di jaar gauche kii di jaar droite ay ndaanaan lañu nañ ko wane ay xale lañu dañu toll di compétir dañu bëre at xam ne ay champion lañu loolu laa ci yóbbee di conseil. mbër bu bëree signature li nga wax ci signature bi ku ko yóbbu lamb ja est am mbetteel. am na ñoo xam ne li ñuy wax signature moom la ñuy yóbbu lamb ja ñu am mbetteel am ñoo xam ne li ñuy wax signature la ñuy yóbbu lamb ja am mbetteel mi ak sa man nit ki mën naa wax lu mu gëmul waaye di ki li mu wax di gëmee ko te mu dëgg ci moom bu demee da ko exploité kenn ku ne la nga wax na nga ko gëm dëggal dëggal ko. soo ko dëggalee rek làmb ji du yàgg jaajëf siis. waaw maa lay fay. bu baax a baax. ñu ngeen waajee Franc mu jëm ci bis bu rëy diggante ak Sokh. waaw di nuyu waa parcelle gépp nag. 1 ba 26. comme ni ñu daan waajee rek ñun am bis façon bis bu mag def bu ne am def nañ ko fi quoi. te waa parcelle gi yëpp benn la ñëpp a mobilisé nekk ci ginnaaw Franc ku ci xew la ci ñoom ñëpp rek ñun dañuy ñëw gën doole la waaw jëm ci dimanche nag di ko ñaanal mu am dam xeex wala bëre ban moo woy avantage. ñun pare nañ ci côté yëpp pare nañ ci xeex bi ci bëre bi ñun côté yëpp pare nañ ci. surtout nee na da koy ñu yaakaar ci Franc newut ci moom musul songale mbër. musul jaxabal mbër musul mbot mbër benn sol la mooy wér la bopp bi ànd ak yow la daal. sook sook daal waxu mbër lay wax waaye moom moo la gën a xam li koy xaar moom sook li ko ko xaar moo la gën a xam waa Pikine yëpp xam nañ ne li leen di xaar xam nañ ko te bu dimanche dinañ ci xam dara. waaw dama ci li ma gis dañoo yokk pression sook nii ñu ko defal lii pression lañ dolli ci kaw mais bu dimanche dina xam lépp dëgg la. merci beaucoup. coach maa lay ñu ngi lay fay ñu ngi lay. tudd. waaw man Souka Souka. yow yaa yor xale yi di leen préparer. ban état de forme nga gis ci Franc ak actuellement sa athlète nan nga ko pare. waaw li may njëkk a wax mooy maa ngi leen di nuyu di nuyu mbokk internautes yi di nuyu waa Parcelles yëpp. di wax ne vraiment mobilisation bi jaar na yoon. maintenant pour répondre à ta question. Franc préparé nañ ko ci condition yu baax. et ku gis xam ne il est à 100 pour cent et pare na. combat bu yàggee est-ce que dina ko arranger ak poids bi mu jël. non je ne pense jël na poids ci combat bi ñun athlète la ñu yor et vraiment condition yëpp n'est-ce pas yi nga xam ne vraiment euh, yu optimal la n'est-ce pas teg nañ ko ci pour bu ñu demee incha allah ci bés bi suñu borom may ñu ndam donc je ne pense pas am na un surpoids boo xam ne combat bi bu tiré en longueur dina ko sonal. et voilà sur ce sur côté boobu maa ngi ma am nañ si am nañu xel bu dal ci côté boobu xam nañu ne suñu mbër mun na bëre ba guddi et combat bi lu muy gën a tiire en euh, tirer en longueur suñu mbër dina gën a yëg en puissance donc pour loolu amuñu dara amuñu si benn souci. li mu wax ni day daan soq ci une minute est-ce que da ngeen di bàyyi mu confirmer loolu wala ñàkk condition moo tax mu bëgg a préparer combat bi daan ko ci une minute. non yéen loolu seen wax la yéen li ngeen xalaat la loolu. donc man defe naa ne nit du fi jugee investir xaalis dem ba Belgique n'est-ce pas bi yàgg na boobu ba léegi préparé wu ñëw ba ñu ne jour jour ji mooy un wala xam nga mooy deux nit ñi di sikki sàkk nag sur le plan cardio pare na wala dafay gaaw a sonn at yooyu. donc loolu wax la communication la làmb la ñu jëm incha allah et bés bi làmb ji lu mu laaj rek incha allah dinañ ko def bu soobee yàlla jërëjëf ñu ngi leen di sant. waaw non mais coach affaire yi ñëw na de. waaw looy bañ mu ñëw. looy bañ mu yegsi. bul ko wutal bés. dimanche ginnaaw suba. sant yàlla rek. sant yàlla gu wér. ñaan yàlla yàlla egg ñu seeg jàmm salaam. fi nga toogoon ba ba léegi fa ngay fu ma toogoon. ak li ma la waxoon. wax ba léegi. ñaan yàlla yàlla ma ñu ndam. mais di jégalu sama kaddu. te nuyu sama kilifa muy Aliou Dione. tey li ma doon ni moom la. maa ngi koy nuyu de passage di ko taalal loxo di ko ne mu ñaanal ma muy Aliou Diop maa ngi koy nuyu sama kilifa la waaw combat bi ko li mala la waxoon rek pare nañu lu ñuy pare lépp fi mu ne ñaan yàlla yàlla ma ñu ndam. ay état de forme Franc instant yi ci trois jours yu des ci combat bi lan la ciy liggéey day xëy tëdd relax teg la ay tànkam wala. non du teg la ay tànkam de parce que day jëm si xare. fi mu ne dañuy wàññi combat bi dañuy wàññi entraînement bi di ko doser muy foo foo bu sérieux dañuy fo actuellement foo bu sérieux dañuy foo est-ce que yaa ngi may dégg. ay poids léger muy contact ak ñoom. mooy dégg nga foo bu sérieux dañuy foo actuellement nii combat bi jeex na du ñu def lu ñuy gaañ ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ñaan yàlla parcelle bi yëpp génn gunge franc ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam. waaw ñun yëpp dañoo génn dooleel. ñun tamit dañoo génn de. ñëpp génn. ñëpp 100 pour cent ñun 100 pour cent. ñun 500 pour cent parcelle la ñu ñun 500 nañu du ñu 200 ñun nañu ma xamaloo loolu ñun 500 parcelle la ñu. 500 yooyu da ngeen koy indi lamb. waaye lépp la ñuy fees diw ko ba mu fees dell. <laughs> jaajëf jaajëf champion. ma gis. non mais dara. laaxatu ma sax damay damay kii nii rek. xam gars fii li fi man Franc moo affaire bi xam nga euh, cent pour cent parcelle bi ñëpp ci nan bokk te sama booy la mu doon nit koo xamante ni même en dehors la làmb ñu ñooy ñooy fréquenté chaque jour donc kon bu xewlee war naa mën a ñëw. xam nga combat bi muy bëre diggante ma Sokh. non mais loolu loolu kañ moom la xaji di mbow. Franc ak Sokh. non loolu dafa yomb sax. ñaari état de forme ñaari mbër yi ci mbër moo ci ancien mbër bu bu retraité ci la non non non <laughs> non mais bon xam nga nit ku nekk sa athlète nga xam man Franc laa xam ne actuellement euh, fi mu toll nii fi combat bi nii il est à cent pour cent ci forme donc Franc laa mën a jugé. xam nga boo xoolee xam ne mu ngi ci mm, euh, gisuma ko sax. gisuma ko sax. gisuma ko sax ñun suñu mbër rek. ñun suñu mbër la Franc nan xam ne moom mooy à cent pour cent nee na Franc li ñu yaakaar ci moom newut ci moom moom moo ko gën a technique ndax Franc musul mbot mbër daan ko musul jaxamal mbër daan ko musul daan mbër lu dul ko bopp bi bu sonnee mu jaay ko doole mais au contraire sokk nag moo fiy jaay doole di daan bu dee bëre bu Sénégal yëpp sénégalais yi naa fekkuñu xam nañ ni Franc bëre rek lay def koo xamante ne chaque chaque semaine mu jël tournoi kooku bokk la ki nga xamante ne musul jël tournoi bëre dóor moom ñëw te ñëpp gis nañ fi Franc sook sook ñëpp xam na ne mënul bëre dóor ak bëre simple duñ benn euh, mais gis ngeen ne Franc wane na ay preuve am ci bëre dóor na ay preuve am ci bëre ak bëre simple bokkul te Franc wane na ay preuve am c'est possible bëre dóor lan wax c'est possible ah. waroo yëpp la war a mën a bëree combat bi ko combat bi ba am ci ndam. non mais euh, euh, xam nga xale kenn du ko yab fële da xale da nga naan ko prudent war non xale la xale Franc xale la man xal bi ma bi ma nekkee xale di bëre prudence laay demee rek mais xale kenn du ko yab Franc xale la na ñëw. def li mu war a def dem yoonam. yàgg na. non mais parce que xam naa sama athlète xam naa Franc nu mel. xam naa ne mën na bëre te déterminé mi yow laa wax sa carrière yow. man sama carrière waaw sibile naa bàyyi naa. xam nga rek yaa ma gën a xam. làmb neexul. neex na ci man mais làmb neexul. rek nga daan daan. waaw mais làmb moo neexatul. sa xel nekkatul waaw ah, bëgg na dama des fois nag ma jékki-jékki bëgg bëre. deret bi yëngu comme instant bii nii maa ngi bëgg bokk ci mbëri fi nekk mais mënul si mën na mën naa bëriwaat à tout moment. parce que bi ma ni ma toll léegi bi may bëre toll ma woon nii mën naa bëre à tout moment bàyyeegu ma. gaa yi ma jël ko. nee naa gars yi préparé combat laa mënul mais combat bu yàqu mun ma joxee ma jël. waaye préparé combat laa mënul. dama ñëw pour sauver journée. waaw dama ku journée mi yàqu na ma woo ma ñëw bëri ko. waaw ay ca rafet na. nuyu. maa ngi fay. maa ngi sant bu a baax. man fii dëkk Inteset. maa ngi Franc ñoo bokk koñ. ñoo fowandoo yarandoo màggandoo. Ah. waaw. waaw nga da ngaa sot fii. déedéet man fii laa dëkk Inteset. fii laa juddoo fii laa yaroo maa ngi Franc koñ. Modou Inte dix la dëkk man set laa dëkk. fii laa dëkk fii fi ma nekk nii. fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa ñoo fowandoo ñu def loolu lépp. mais am. démb gis nga open press bi nga xamante ne mooy open press soq Pikine gépp génn champion yëpp mel ni bis daa am fu mu leen toll te yow xam nga Pikine ndax yàgg ngaa ñamanteeg waa Pikine lan ngay wax ci loolu. waaw mais loolu dañ koy rafetlu rek. parce que tey ku ci mel ni Sokh bu xewlee ñun ñëpp ñu ñëw dañ ko war a def parce que ñun ñëpp gis nañ communication bi muy def si Pikine chaque jour communication bu jaar yoon xam nga di woo ñëpp chaque jour kon su xewlee borom lañ ko fay quoi xam nga li ñu def noon lu ñu war a def la jàppale ko dooleel ko incha allah nga xamante ne bu ñëwee bu ko Franc daane day gën a neex rek incha allah. mën bu soobee yàlla. arbitre sifflé moo fi bàyyi sox champion bu mag la nag jàmbaar la maa ngi koy passage mais arbitre sifflé moo ko bàyyi lu leer laa la wax. ban musique Franc di xale bu ndaw 93. maa ko magee benn at. 93 la wallaahi man bu arbitre sifflé la ñuy comprendre incha allah. xeex wala bëre lan moo ci avantage lu mu bëgg rek sox lu mu bëgg rek bu bëggee xeex mu ñëw xeex bu bëggee bëre mu ñëw bëre bi moom day ñëpp xam nañ Franc nu mu ci am wax bu am solo bu mu mu gëm ko nee na moom ku naan Franc moo dàq bëre xamoo li nga wax ndax jël yi mu daan Franc daanu ko moom ca xabal na mbot na zongale na mbër daan ko Franc na da lay wéer bi rek boo sonnee mu daan. waaye dama ne sa waay loolu ay waxi mbër la rek ay Franc day wér boobu Franc prouvé moo tax ñëpp xam ko prouvé prouvé nañu wax rek ku nekk na nga waxal sa morom qualité am Sokh la mbër la mën na xeex mën na bëre mais na nangul booy bi comme niñ ko nangulee na nangul booy bi booy bi champion la na ko nangul loolu mënu ci dara loolu suñu borom def la munu ci dara incha allah arbitre siffle moo ko fi bàyyi waaw jaajëf. koo xam ne ci presse bi ngeen nekk yéen ñii toog leen yéen côté bi toog leen toog leen moom moo yor la yéen waa côté bi toog leen journaliste yi moo leen journaliste journaliste yëpp côté bi léegi gars yi sagal way ko musa way ko musa na no wawa yobula sagal way na no wawa yobula sagal na ñoy waaw waaw wétal na Modou xarañ loo waaw waaw waaw. ku la sagal way ko. ku sopp Moussa Dioum loxo ca kaw. sagal ku sopp Moussa Dioum loxo ca kaw. sagal sagal way ko. du Moussa Dioum sagal nañoo waaw waaw. ku la sagal way ko. Fara sagal na la. Moussa Dioum sagal nañoo waaw waaw. Fara ku la sagal way ko.

Fara dalay coob ey Fara dalay coob nga mu ne Fara dalay coob Papis Fara da koy coob Papis dalay coob dalay coob dalay coob Fara Fara dalay coob dalay ca njaago njaago e njaago njaago njaago bangi e njaago bangi Njaago bangi. Njaago bangi. Njaago bangi. Njaago bangi. Papis xarañ loo Papis oo Papis Papis xarañ loo Modou xarañ loo waaw mbokkum yaayu góor Moussa Lamine. ah. ah booy duul. Baay yégalal benn pegg yégalal benn pegg. attention Papis Xarañ Lo. yégalal ko benn pegg. ko Franc Franc xam nga xam nga waa Pikine dañoo bari wax léegi dama